situation bi may wax yow élection yi ñi nekk ay conseil municipal ak départemental amatu légitimité pour ne tant que li jàllul ba président de la République prouvé ko kon motax man ci turu front bi ak opposition bi yépp ñu demande pour ma ñu def ko 19 décembre 2021 ndax buñu ko def date bobu non ñu bëgg koo yóbbu le 27 février su fay tomber magal ko Kazu Rajab su boba day nekk ci bir Coupe d'Afrique te ñom balé xamuñu loolu benen bi ñom ñom si état état Sénégal ñom def nañ amendement contre sama amendement mais ñu amendement bi def le 31 janvier lañ ko def pour 2022 kon mu leer na ni maam 6 2 bi day dikkat ba tay ci ñom mais 19 décembre ak le 31 janvier amul différence le 31 janvier ak le 27 février amul différence kon légui président de la république moom mo waxone da fay jollé ki mais ñu ñu amoon maanaam fulla ak fayda pour bëgg suñu réew dem wuy ji mais fulla bu ak fayda wala ñu am manam bu ñu gisul lu ñu xam ci jël politique ñu gën tok japp suñu bop lool mo ñu dal motax ñu gën tok wax na suñu proposition société civile ak opposition bi ak administration ñep d'accord nañ ni élection yi mën ko tegg ci mois de décembre comme mën ko tegg ci mois de décembre yow da nga bëgg jubo ñu li leen proposer mais and ci ñu def ko jamm am ndax xam nga ku bëgg manam fu mu ak ku bëgg wétlé te jëne nekk du leen bolé ñun paré nañu ñom néna paré nañu def na amendement pour décembre nañu ko adapter ñu mëna continuer lool rek mo nekk. opposition bi dafa né nañ ko def décembre 2021 pouvoir bi né nañ ko def euh, le 28 février 2022 mais lool ñaari wër mo nek seen diggante donc ñu jox kàddu gi président président dellu ci ñëw dagg la poire en deux comme ni ko société civile bi laajte donc daa di ne au lieu de ñi décembre la wax ñi février président indi ko janvier.

loolu teg baaxul et eh, man fi may rek mooy élection présidentielle bu ku jégi ak pouvoir bi waxtaanee ba trouvé wuñu consensus kenn rek la ñu mën a dellu mooy si président Macky Sall kooku moo mën jël décision ne telle date la ñuy def élection parce que kooku moo nekk le chef suprême en tout cas bi nga xam ne moom la ñu jox suñu réew kooku moo war définir carte yi.